je pense que ça fait ça de quinze ans maa ngi dans les affaires euh, mais mën na ma jox la benn anecdote bu ndaw ñun am nañ ministre de la culture te am nañ ko. Mhm. ça fait dix ans mën après mën nga def si archives yi nga xool événement bu fi am ñu koy organiser te déggoo ci Mamadou Yatassay amul juste pour diir que euh, dañoo xaar ba sonn. dañoo xaar bu sonn te désespoir bi dafa togg foo xam ne man en tant que chef de famille en tant que chef d'entreprise dama gis ne dafa jot ma jug taxaw parce que gis naa espoir bi xale yi am sama jëmm gis naa respect bi ñu am ci sama sama li may def donc ma jug jël samay responsabilité mais sëñ bi pare na événement événement sportif culturel euh, depuis deux ans dix ans loolu du loolu doyul ci politique de loolu du palmarès de. maa ngi mun a xam nga man du ma politicien. ah man. <laughs> pour man pour pour pour être un candidat sérieux à l'élection présidentielle il en faut beaucoup. Euh, je j'en viens man du ma politicien man je suis man capitaine d'industriel la j'emploie beaucoup de personnes dama nekk si hôtellerie am fi hôtel amaat fi hôtel aquaterrasse mooy sama troisième activité. xëy na c'est l'activité la plus connue. moo am bay <laughs> mais mooy sama troisième activité juste pour te dire que euh, en Afrique de l'Ouest j'emploie plus de six mille personnes. en Afrique de l'Ouest j'emploie plus de six mille personnes récemment j'ai été premier meilleur investisseur de l'Afrique de l'Ouest. Cela veut dire ku du choses.